mbokk yi sama coobare xol ci bànni Israyil ak sama ñaan ci yàlla mooy ñu mucc seedeel naa leen ne ñu farlu lañu ci jaamu yàlla waaye seen njaamu àndul ak xam-xam xamuñu yoon wi yàlla tëral ngir nit jub ci kanamam waaye dañoo wee seen pexey bopp ba tax ñu bañ a nangu yoonu njub woowu yàlla tëral ndaxte ci kirist la yoonu musaa dëppe ba tax ku ko gëm dinga jub fa kanam yàlla ku bëgg jub ci kanamu yàlla ci kaw sàmm yoon musaa def cee wax ne ku ko mënoon a matal dinga dund ba faaw waaye ku jub ci kanamu yàlla ci kaw ngëm nii lay waxe bul wax ci sa xol ne ku yéeg ci kaw mel ni danga bëgg kirist wàcc bul wax kuy dem ca barsàq mel ni danga bëgg kirist dekki kon boog lan lay wax lii waxu yàlla mi ngi ci sa wet ci sa làmmiñ ci sa xol te wax jooju lal ngëm lanuy waare ndaxte soo waxee ak sa gémmiñ ne yéesu mooy borom bi te nga gëm ci sa xol ne yàlla dekkal na ko dinga mucc ndax xol la nit di gëme ba tax mu jub ci kanamu yàlla làmmiñ nit la nit di waxe ne mi ngi ci kirist ba tax yàlla musal ko mbind mi dafa wax ne képp ku ko gëm sa yaakaar du tas mukk ndax ñépp yem ci kanamu yàlla mu yëwut mbaa ki dul yëwut ndax kenn rekk mooy sunu boroom ñun ñépp te ku yéwén la ci képp ku koy ñaan ndaxte bind nañu képp ku woo boroom bi ci turam dinga mucc waaye nan lañuy wooye ki ñu gëmagul te naka lañu mën a gëme ki ñu déggagul turam te naka lañu mën a dégge turam te kenn xamalu leen ko te it nan lañu mën a waare su leen kenn yónniwul looloo tax mbind mi wax ne ñi yégle xabaar bu baax bi ni seen ñëw di sa dexool waaye ñépp nanguwuñu xabaar bu baax bi moom la Isaayi wax ne borom bi ana ku gëm sunu waare kon boog ngëm ci kaw dégg lay juddoo te dégg sosoo ci xebaaru kirist waaye ma ne xanaa ñépp dañoo déggul axakay mbind mi wax na ne seen baat jolli na ci ñeenti xebla yépp seen wax wër na àddina sépp waaye ma teg ci ne xanaa bànni Israyil dañoo xamul axakay Musaa dafa jëkkoon a wax ne dinaa leen siisloo xeet wu bokkul ci yàlla merloo leen ci ñi xamul dara ci yàlla te esaayi takk na fitam ba wax ne ñi ma wutul woon gis nañu ma feeñ naa ci ñi ma laajul woon waaye ci mbirum Israyel dafa wax ne talal naa samay loxo suba ba ngoon ci xeet wu may bañ tey werante